bonsoir chers téléspectateurs de la 7TV euh, comme di ngeen ko gisee tey euh, ñëpp xamee ma woon nag may daal di dem euh, chez les ministres députés wala sax ay hommes politiques cette fois-ci ngeen daal di gis ne maa ngi dem kër internationaux footballeurs yi ginnaaw bi ñu jugee kër Alassane Ndao tey nag dañu daal di ñëwaat ci beneen international footballeur ki nga xam ne champion d'Afrique la ki nga xam ne dafa toj Grèce dal di ñëw li nga xam ne mooy Turquie ki nga xam ne également def na feu et flamme fële ca équipe kenn ku Pa Abdou euh, Cissé Pa Abdou Cissé kenn dootu ko présenté ti euh, ci li nga xam ne mooy mën-mënam euh, mën li muy def mais aussi si immaturité donc ba tax daal di convaincre li nga xam ne mooy Sénégal yi ba ñu daal di ko bëgg xam nga Sénégal moom boo immaturé rek ñu daal di la bëgg ndax dëkku immaturité lañ leen daal di woowee Pa Abdou nuyu nañ la. maa ngi leen di di leen dalal di nuyu ñi nga àndal aussi di nuyu tous les di nuyu tous les ñi nekk à l'extérieur ak ñi dëkk fii nii di leen jërëjëfal ñoo ngi lay jaajëfal également bu baax a baax ñu daal di ne tay kori tabaski avec les célébrités comme ni ñu koy daal di defee chaque année ñu daal di ko def chaque année nag ak célébrité bi nga xam ne moom la ñuy daal di dalal euh, comme ni ma ko waxee tantôt euh, cette année dañuy daal di ñëw euh, ci ñi nga xam ne mooy les champions d'Afrique ak ñi nga xam ne ay champions lañ ñu daal di leen xàmmee lool ci milieu football bi nga xam ne moom moo am donc moom nag nekk daal di nekk champion d'Afrique. champion d'Afrique champion au Sénégal donc ñëpp xam ne champion la dañ koy daal di bàyyi mu baalonte ak téléspectateurs yi avant ñu daal di ñëw ak ci waxtaan bi tey. waaw maa ngi profité si euh, journée bii nii di euh, baalu àq képp kuy euh, jullit di baalu àq tous les mm-hmm. di ñaan yàlla yàlla saxal fi jàmm yàlla dëgëral ñu kàttanal ñu yàlla oyofal yan Euh, di masaw coono aussi tous les sénégalais. Mm-hmm. di leen jaajëfal di am contentement bu baax si journée bi nga xamante ne passé naa ko aujourd'hui fii nii en famille parce que loo xamante ne nii duñ koy am souvent donc maa ngi baalu àq ñëpp ñi nga xamante ne nii ñu ngi seetaan. Mm-hmm. baal nañ la àkk xam ngeen àkk moom dafa daal di sew nga yëg ko nga ñàkk koo yëg des fois nga tooñ nit ki te doo ko yëg ah, donc euh, di la baal baat bu baax a baax mais di leen baal war bu baax a baax ñu daal di ñëw tabaski donc bu bu euh, euh, ñu rayee xar bi ñu julli ba pare dañu daal di rey xar donc yow naka sa bés bi xam nga macha allah yow naa dem julli ji ñibbisiwaat. waaw sama papa muy fii moom laa bàyyi affaire rendi bi. alors ñu gis ne madame Cissé mu ngi fii aussi tay rëgal na bu baax ci ci tabaski bi. waaw ci la dëkk moom journée yëpp tabaski la <laughs> moom chaque jour tabaski la. chaque jour tabaski la. alors ginnaaw bu ñu tabaskee ba pare nag dañu daal di génn si si si li nga xam ne mooy ñaani déwénal. est-ce que Pape day ñaani déwénal wala nit ñee ñoo ñaan si déwénal. man dem. yaay dem <laughs> maay dem mais damay sàkku ñaan rek. xam nga mhm. ndooni bokk damay dem si sama waajur yi xam nga mhm. ak yenn kilifa yi nga xamante ne nii samay rakku papa lañ yooyu mhm. ñu ziar leen ñu ñaanal ñu parce que naa ndooneel boobu moo dàq daal mhm. uh-huh. alors ñu daal di génn ci côté tabaski bi na xam naa ne du jeex parce que tabaski moom dafa daal di neex euh, ñu daal di dugg ci côté sport bi tuuti. Mhm. alors ñu gis ne euh, Pa Abdou jugee fa fële nga xam ne mooy Grèce daal di dem Turquie. Euh, naka nga juger entre li nga xam ne mooy Grèce et Turquie. waaw transition la c'est c'est comme ça c'est le foot xam nga rek Euh, ñun suñu liggéey moom dëkkuñu fenn. Mhm. waaw di nga nekk euh, sous contrat bu contrat bi jeexee soit nga prolonger soit euh, nga changer club s'il y des opportunités. je pense que club yi moom ak supporters yi c'est deux aspects différents parce que bi may dem Adana le club même parmi tout ça supporters yi aussi Imboulé club boo xamante ne nii famille pour adapter aussi. fait de la Grèce maa ngi doon jóge Grèce après six ans de saison six six saisons euh, ma yeggee bon après comme on est des footballeurs on est censé être partout war nañ mën a dem depuis yëpp et euh, voilà vite je me suis activé fekk sax si saison bi donc alhamdulilah voilà je pense que euh, maa blessé depuis presque un moment c'est un manque de temps de jeu donc voilà du ma wax ne manqué na équipe bi parce que l'équipe se déroule très bien résultat match de Coran éliminé en jouant la Coupe d'Afrique mais noonu la mënoon demee on reste toujours des champions d'Afrique eh, voilà yeneen ñi moom wàllu ambiance ak vrai confort et tout équipe eh, la quoi on est tous des Sénégalais ku nekk sa rôle je mis à part le terrain ku nekk am na beneen rôle boo xamante ne peut-être sa mbos moo xaw a feeñ souvent dañ may filmé mais euh, le plus important mooy l'équipe nationale. non il est champion d'Afrique. moom moo indi du Sénégal moom moo tax ñu ne euh, Sénégal euh, euh, champion d'Afrique la ñu donc voilà alors comment tu vois jalousie bi nga xam ne du jalousie sax concurrence la concurrence bi nga xam ne moo ci nekk ku nekk yaa ngi ñaan yàlla dugg c'est tout à fait normal on est presque mille ñu ngi évoluer dans le haut niveau et je pense que mis à part d'être juste aussi nga xam ne t'es un patriote représente le Sénégal partout où on va budul football kese xam nga man su ma yeewoo ni génn tamit je représente le Sénégal su ma génnee en dehors du pays donc euh, je pense que tous les athlètes ils rêvent de défendre les couleurs de notre pays et euh, voilà on va pas appeler ça une jalousie on va dire que c'est euh, la concurrence et la concurrence est saine comme on dit parce que bu ñu xasee bu équipe nationale rek après on s'entraide on on est vous voyez dañuy gis da ngay dem leen teg joueur soit ngeen bokk euh, voilà équipe nationale c'est une famille parce que boo demee di représenté drapeau moo gën a fort ñun gën a fort concurrence bi en place foofu noonu mais voilà elle est saine alors ñu aussi dañuy euh, dañuy bëgg a tester en Europe pour ñu daal di leen gën a surtout côté Arabie Saoudite euh, est-ce que yow yaa ngi souhaité un jour nga daal di dem Arabie Saoudite. waaw bon football la parce que football moom comme ni ñu waxee dëkkul Europe kese. bon euh, en Grèce il y a beaucoup de Sénégalais yoo xam ne je pense que y a dem euh, dans ce pays donc football moo baaxoon noonu. Hmm. volet dafay étendu quoi partout dans le monde donc Arabie Saoudite euh, nekk na destination boo xamante ne nii ñëpp nga fa par rapport à beaucoup de choses c'est une bonne parce que la vie est tranquille et surtout musulmans aussi yoo xamante ne dem foofu jeu bi dina ok on parle d'argent mais comme ça c'est le travail et euh, le statut de fait dina bokk ci joueurs yi nga xamante ne ñoo yëkkati ci niveau bi foofu c'est aussi des challenges Mais euh, machallah quoi. Après, pourquoi pas, si l'opportunité se présente, Inch'Allah. voilà, on a des problèmes comme nous, quoi. on a des stress et tout, mais bon, mais euh, positif tout le temps les choses. am nañu ma gën a tirer les situations, peu importe. am na tey j'aimerais bien être à ma place nekk ay football professionnel ñoo xam ne handicapé lañ ñoo xamante ne ñi amuñu daal pour jouer ñoo xamante ne dañoo wérul ñu nekk si lalu donc euh, voilà c'est des choses yoo xamante ne à chaque fois que ma si bàyyi xel rek ak plus l'éducation aussi si bàyyi xel rek je ne prends pas la tête je profite de chaque instant de la vie et euh, voilà noonu la demee quoi moo tax may garder sama pourtant j'y suis hein peut-être euh, ça dépend si que voilà mais la plupart du temps man du ma filmer sax sama bopp samay copain laay toogal di déconner nii ñoom ñoo may filmer dugal ko mais voilà j'y suis la mode et puis euh, notre génération. je fais ce que je fais aussi. Je suis pas obligé à chaque euh, de faire ce que je dois faire. Mais euh, voilà, c'est un aspect boo xamante ne nii man réseaux sociaux vraiment sa du ma si bàyyi xel yàlla j'ai un compte mais j'y vais même pas qui mettent des vidéos euh, je pense que mu neex ñenn ñi ñu xam ñu may déggee c'est le plus immature immaturité c'est pas un mot méchant, mais plutôt euh, quelqu'un qui fait. ah je le prends bien je le euh, euh, ay nit kese lañ xamoon. bu fekkee ne dama amoon beneen melokaan lu ma nekk seen biir xol woow ma leen pour ñu bëgg ma. naturellement et c'est ma personne en fait non la même. a dundee yaa ngi nii ñu ne gis nga ko kër gi day xumb chaque instant xam nga foo après li si des yëpp xam ma xel lu loo xamante ni daal day ñaaw Euh, immature ça me plaît donc nekkul loo xamante ne je le prends mal yaa moom dund ba dee suñu ñaar kenn nga xamante ne yàlla moo ko def ñu nekk ay gaañ même nekk jëkkër ak jabar tamit ñu ngi nekk ay gaañ loolu la vraiment content aujourd'hui euh, ma may wax ne ma ñu ngi roy ñu buñ koy def sax c'est pas pour que ñu ñu roy c'est pour nous en mm-hmm. noonu la ñuy bu demee ba nit ñi tey jii nii ñu koy reprendre ah ñu ku ñu rey lu baax moom wax dëgg yàlla kon sa jëf baax na macha allah ñaanal jàmm Sénégal daal. alors ñu daal di xuus ci li nga xam ne mooy sa euh, euh, vie bon moom dëkk moo baaxoon noonu comme ni nga ko waxee yaa wax Sénégal lañ nekk mhm. je pense que même euh, yeneen dëkk sax mais euh, voilà lii moom maa ngi koy bon comme ni ma la ko waxee nekk mu si réseau yi te defe nekk loo xamante ne nii sax dëgg yàlla bàyyi naa si vraiment bi nga ko waxee sax maa ngi sama fi bàyyi def ko fii <laughs> Sénégal moom baaxoon noonu. Ah. mais di jaajëfal ñëpp téléspectateur yi nga ñu ngi seetaan à travers le monde entier di jaajëfal également waa 7TV di euh, on se donne vous incha allah ci beneen événement ci euh, plateau euh, di leen jox également rendez-vous dans la matinale vous m'aurez tous les sur ce prenez soin de vous et bonne fête